من عالم من الأجائب والأجائب جمعتان قرب الأبيب وما إليك وصول من انذرابهم بحط قرب بحط بقرب وقتمت بزهرتنا فيا عجبا من باطنا هو زائر فالاسماء والاوصاف والكون جملتنا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 la ilaha illallah allah allah la la ilaha illallah la ilaha illallah dëgg dëgg la la ilaha illallah barzaqul la yabqiyaani moo Sidi Barham nurul huda beñ na Sidi Barham way bexe ñal na len yeen binde fi sopp baram da ngeen bëggee lii na sidi barhama haw ci diggi manding mar dabla nga de sen tudde kala may ndox mooy so sowetaas mo di barhama way balen ji koy purox day bu jëf dore ki ma sopp da leen gërëm mbër mi leen wan Sidi Barhama xameel ka nga xamoon ku la gëdd dina ko yaa njool maam Ibra Faal xam ni suñ baay Sidi Barhama xamee ka nga xamoon way ku la gëdd dina ko yaa njool maam Ibra Faal xamee suñ baay Sidi Barhama xameel ka nga xamoon ku la gëdd dina ko ka doon laajte faale ngoye ngi moo di barhama ba may bawoo caamen suma makkaan di jëm njawara hal baa ngi may windeel may wër sidi barhama folaata jeeg seexu fay banjul mu may xemem loo habal faydu feeñ na soodaan sidi barhama seexoon ko naan gént naa biig bag bu mbooti mbooti ba hoo kay bu jëm soodaan sidi hammaa ci mu mag mi mboot ma mu handal ba wàcc nekk baay jas bu wax na mboolem saydam sidi barahama samaanaale gént naa bi bag bu em mbooti ba woo xay bu jëm si soodaan sidi barahama dañ na soodaan barahama way kadaan faldi folli kadaan yeble yebletul jëmmam far na teew kantong borooma ce gën a yeey sidi barahama sidi barahama waa àdduna bi yépp ñu ngi gërëm suñuy xarit ak suñuy soppe ah, émission bi bi biñ ko annoncé ba léegi nit ñi ñu ngi koy xaar yàkkamti ko euh, depuis vingt et nit ñi ñu ngi toog di di dégloo euh, suñu soppe yi ak ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a seetaan émission bi ñu ngi woote ñu ngi laajte donc loolu la woon waaye duñ duñ duñ duñ tëj te demuñ ba ci suñ pay ba ñu gërëm waa Medina Baye yëpp. ñu ngi gërëm waa Medina Baye yépp waaye ñu ngi ciy jiital suñu suñu suñu xalifa suñu papa di papa Cheikh Ahmed Tidiane di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér di ñaanal suñ imaam muy imaamul akbar Cheikh Tidiane Ali Cissé ñi ngi ñaanal papa maay ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahim ñu ngi ñaanal suñ yaay Fatima Zahra yàlla may ko gudd fan ak wér ñu ngi ñaanal Medina Baye yëpp yaa booy roqiyatu Baye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax ñu ngi ñaanal muqaddami Cheikh Ibrahim yi yëpp taalibe Cheikh Ibrahim yi kilifa diine yi bàyyiwuñ kenn ñu ngi dem ba Touba di ñaanal sëñ Muntaxa di ko ziyaar di ñaanal euh, Cheikh Babacar Mansour te di ko di ko ziyaar moom tamit ak mbooleem kilifa diine bu nekk ci àdduna bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye ñu ngi gërëm suñ boroom kër ndax daf ñu yaatal Boubacar daf ñoo dimbale ci li nga xam ne ni ci lañ nekk waaw ñu ngi leen di gërëm yéen waa ITV yépp di ñëw fii ci dakaar di gërëm suñu sëriñ di xalifab Mawlana Cheikh Ibrahim fii ci dakaar muy Cheikh Mouhamadul Amin suñu suñu soppe la suñu sëriñ la bu ñu ziyaare jee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu yóbbu ba foofu moo ñu yóbbu Makka ñu ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nim ma koy defalee noonu la koy defalee képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci yaa ngi yor euh, sa illeer di bay ci hmm. payib Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi maa ngi gërëm maa ngi sant maa ngi jéggalu ci guddal bi Boubacar waaye dafa am ñoo xam ne dañoo yàgg xaar émission bi loolu moo tax ñu ngi gërëm Cheikh Abdoulaye bu baax a baax ñu ngi koy gërëm bu baax ndaw ndax lii yëpp ci moom la ci mbaaxam la jërëjëf Baye Cheikh Mamour Insa ñu ngi koy gërëm euh, euh, ndax li ma doon wax rek moom lay waxaat tey bu ñu ñëpp xamee ci àdduna bi moom la teraanga nag nit bu la yàlla defee ci yow kóllëre ki nga xam ne moo la defal teraanga ji wala ci moom la ko yàlla jaarale wal nga di ko ko waxal toujours bu jot naan ko jërëjëf ndax lii moom moo ñu ci yar wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant ñu ngi gërëm mbooleem jullit di balu ñëpp àq di wax nag l'heure est waaw comme ni nga ko waxee Boubacar nañ nañu jéem a sàmm wante ah, ak li nga xam ne loolu la ñuy digal pour mucc ci li nga xam ne nii moo fi nekk muy balaa bi nga xam ne jaaxal na àdduna wërngal képp waaw il faut daal ñu respecter les mesures barrières hmm. pour ñu mën a mucc incha allah loolu la برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان